itam indi ay xëccoo ba sax tribunal bu Dakar joto àtte ci bile xëccoo ginnaaw loolu nag ñu bëri ci doomu wakaam yi di ci yëy yàbbi ba sax tegaat bile coowal suuf ci loxo yoon bu ñu sukkandikoo ci maire bi. fan yi passé ma jot benn notification par voie d'huissier comme quoi une partie encore. de la collectivité réunir nañ ne dañuy nangu permis d'occuper bi nga xam ne joxoon nañ ko US Wakam léegi nag dañ koy nanguwaat jox ma ko par voie d'huissier ni ma ko joxee noonu aussi ñu jox la même notification a à l'union sportive de Wakam pour wax leen ne nangu nañ terrain bi ñu leen joxoon le permis d'occuper bi nga xam ne moom lañ joxee fii yëpp ci biir 5007 bi mu nekk lu doy waar ngir saafara lu ni mel ci jiite bi la commune nag di woote rek ab waxtaan ngir ñu dakkal coowal suuf ci ci Wakam il faut pas que ñu continuer di xeer ñu yëbbu tribunal di dugg ak génn man je tends la en tant que maire à toute la population wakamoise ni mu amee dialogue national ñun ñu am un dialogue local loolu laay invité nit ñi pour ñu ñëw toutes les franges de la population pour que ñu ñëw ñu toog en responsable ñu waxtaan naka la ñu mën dindee Wakam si euh, impasse bi ñu nekk surtout sur le plan foncier ci ab projet bu ñu tàmbali ñeenti weer na ca tabax ab bërëb bu tàggat yaram ak ci siège bu US Ouakam jur ay xëccoo ci diggante ñi fare ci maire bi ak njiitu aada yi muy firndeel ni rek coowal suuf bokk na ci jafe-jafe yi doomu Ouakam yi di jànkonteel ngir saafara lu ni mel njiitu bila la bokk mel taxaw temm nara dakkal bi la coowal suuf ci Ouakam